dellu sant xayrul xadime sayxuna ahmadoon fal fil ayne ku ko yàlla man loo fekkal fii sëriñ xaadim jox ko addi sëñ bamba ñoo leen jox ko addi bamba jar ku ko jox ren yàlla nga jox déwén barke borom tuba barke war dellu sant xayrul xadime sayxuna ahmadoon fal fi ayne baydam ndax ma doon may la nu daanoon ci diine di baay daam ax ma doon tànnoon xolu yóbbal ngeneel yu taaru ci diine moo tànnoon xolu yóbbal warjuku sant yàlla tay yoone seddu bakke danu dakas baray di satuli yoone ku dugg gis ku dàq kër ga mu miine bakke danu daa dox di xëy di gontu ba dem ndar te ku jóg war وات حق قال سبينا بدم در تي كنجو وتاكي بكلان وندر ñëw Mbàkke leen fa Njurbel bu seyra ya ah, ndawal gi dootunu Mbakke yile xéewal ku si Yàlla wam gi te santo teralo baay faati ak Maymuna te santo terolo baay ak ille may doy na sëpp góor ci bu farlo xeeti yombal dana defar aw yoone yo badana defar aw yoon illa matuloo ki sum ya ak yi la taabal gaganaay taali lampi baaji leen bala ay sa yi la taabal Mbakke deri naar yaa ngi toog yaa ngi nu dendal danu dalal ta gargi tay biin biin Mbakke toog yaa ngi nu dendal danu dalal Mbakke yaa nu nandal ci kopi weer yi nga feeñal yaa di mbër yaa nu tàggale naan ko ne bala asa yaa di mbër bakke yaa nu miinal ka beeki gaasi ataaya yor sa ndox meenu tàggaleen naan moo neex kafe ki si ataaya bakke mbila mbaani ku doon ni niw wata sàmmoo arakan Seexu Bamba ku yal diine kutuni sama ta sama waragay Seexu Bamba bakkananu kan Seexu Bamba ku yal diine Ahmadu Borom jaam ñi naan gan Seex Bamba ku yal diine kaari jaam ñi naan gan Seex Bamba Tembur makia Puangian kusapel Boleh nasa Jigin urul ngine Bala adyan kusapel Makia jerejep Bamba Ahmad Xawsi Mbakke jërëjëf Seexu Bamba Ahmad Xawsi Mbakke jërëjëf Seexu Bamba Ahmad Xawsi Mbakke ku yëg la sëñ Bamba defal jugal wax ko jërëjëf jóg leen taxaw wax jërëjëf sëñ Bamba jar na dogonak mbaak bala hanu misikina yanu génne ci néegi ndool yanu bokkoon anu taabal ci am ak diine doon yanu bokk ñu taabal ci néeg gi am ak diine yanu génne ci ren kasaanoo daabal ci néegi xam ma ak diine anu génne ci ñu nox na boole sunuy xol xar sunuy xol def fi ju jofeel ak miine sunuy xol danu waan mag aw ba yërëm ndaw nda di magam ñu rey ak noone dama ndaw gadu dul xibla yaa ngi fi fi nu ko aj dun ci yaare keneen دغنا قران تنسي عليك دغنا قران تنسي عليك ma ne ku yëg Serigne Bamba jógal taxaw ca kaw ñu màggal Serigne Bamba ku jóg màggal Serigne Bamba yàlla na nga dellusi bu déwénee jóg leen ak jub mag yi dañ nga noo ko aj nun duutun si yaare keneen yaanu sunu wirdu anu doy bu aadam yaanu sunu ismu laay doy tembe janaar yaa nu tere xam yaa nu tere xam yaa tembe janaar yaa nu tere xam yaa nu tere xam yaa tembe janaar yaa nu tere xam te walini amuni sangone bakayat khawra bidai dekaliyaj dekalewaj dukan ya nanggukum fone أسبت كنيا وابن يا أرنين كنيا وابن يا أرنين كنيا وابن يا أرنين dunya mu jamane Mbakke buddu goniya sodaan mu jamane ya di jattu njaloor bi feeñ ci kon yow doo daan ma ak neene asabran yaa di jantu bu njalaati feeñ nga ci duniyaa kon yow doo daan ma ak neene الزبران يا دي بايو مهيني يا ولانو دفنداي يا نونو امبال سوين اجن ايوان الزبران yaa di baayu miskin yi yàlla nu dem ndey anu nampal sewena gën ay weene ay sabra say baqa ma jalla ken ma du ko xam jarama say jego ken du ko seene du ko xam karaamaat say jéego kenn du ko seene karaamaat say jéego kenn mënu ko xam mënu ko xam say jéego kenn du ko seene te baqaamaat say jéego kenn mënu ko xam karaamaat say jéego kenn du ko seene

du ngookon karama si jego ma du ko xam say say jagle kenn ma du ko xam karama si jego kenn du ko ma du ko xam gorga taajul kiraame mag la borom am nga ilmu diraaya am nga yaqiine bakki man nga borom ilmu diraaya ki bëri diwaan te gaale wuñ ci géew bi nembar ci géew bi mbàkke bëri diwaan te gaale wuñ la ci géew bi نمبر يوم كفينا مرجبر ديوان تقال ولا تجيو بي يورك نمبر يوم ay waay ku nangu ni sëñ Bambay mbër jugal sargal sëñ Bambay sëriñ ñëpp sëñ Mbacke jox nañ ko waaye jug leen sargal sëñ Bamba ku ko def yàlla na nga am téeméeri at ak fanweer ci doole sëñ Bamba Mbakke mbër di war te gaale wul ci géew bi na mbër ya nga fi ne ci géew bi Mbakke yamu sax ñu ñu rëy

daanu Mbakke yaa fi not lu yaa weddi Yàlla te xeexoo ku diya na tuure dam Makka ceene noota daanu ku diya wu daana daane daana daane yaa am di